salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp góor yi ñu jigéen ñi di leen ziyaara it ginnaaw loolu kilifa yi sëriñ bi tudd ñu ngi leen di beral nuyoo sëñ Ahmad Diagne ak alaaji Mouhamadou Diop ñu ngi ndokkeel it kilifa yooyu di ndokkeel laale mbooloo mépp ndax at ba at dafa sori te yàgg ñàng na lëndëm te rab yu aay moo ci fees dell te kenn ci nun amul arme mbaa gàllaaj kenn ci ñun amul ngànnaay mbaa gàllaaj bu mën a jëfanteeg jaraate yàlla kenn am gàllaaj mbaa ngànnaay bu mën a jëfanteeg jaraate yàlla benn jaam am kon kon at mu àll bu toll ni at di fukki weer ak ñaar di ay sami nekk bés ku ko ñuruxlu ba teeraat ca cat la nga dale woon buur bi la sàmm gunge la ameel nga ko alhamdulilahi bu bees weer wii daaw lanu toogoon fii tooge fi nii lanu waxoon jébbal yàlla ci kumpa la woon ni ko aliyin wax ni nag am na lu mu nuntu nangul bu dul léppit loolu nag ci la nuy rafete njort boole kook ngor defe na la ca desit nangu woon na ko ndax li ni fi waxoon daaw fii àjjanaa ngi ci woon ak fan wu guddaak suturaak jàmm ak yu demee noonu waaye li dellu siwaat di lu ñu nangu mooy boole woon nañ ci fekke déwén déwén a ngi li nangu loolu nag mën naa nanguwaale la ca def xale bi wax na dëgg nii baax na lool bi ci lii yépp mbaa mbooloo yépp am na mbooloo mu ëpp mii naan gën koo jekk nañu tooge gën koo rafet lañu tooge waaye amul kenn ku am xemem téef ca mbooloo mooma ba di fa ñaan lu ku ne ci suuf mbooloo boo xamee nag lu mu xumb xumb ak lu mu jekk jekk ak lu mu rafet rafet amul a xemem téefi ne leen ñaanal leen sama niiw mooma mbooloo ku ca dugg yëpp ngir nattub yàlla xam ne yaa ngi ci mbooloo mu sempale mbooloo mu sempal mooy bu jógee tas tas tas tas tasar mbooloo mu am so solo mooy bu ngeen jógee it malaaka yi def sunu guddi daaw gii ku yëroon sunu bit sëb déwén sunu bit sëb daaw bi nu defal yàlla soo ca fekkee guddi gii mu di poids yu bari ci àllaaxira ëllëg kon nag ku seetaani mawlud dee ca ku ko dégg danga naan kooku de yàlla mën na koo yërëm ku fa jóge feebar dañ naan sa jàng yële jóge rek feebar maara day taali am na yeneen ndaje yoo xam ne ku ca dee loo làmboo woon làmboog baaxit tudd fa nga dee dina dogi naw ndax du yépp jotaaya neex ci borom bi dafa am yu mu bëgg ak yu mu bëggul yu mu bëggul it nit ñee dëgër bopp waaye wax na ko ba ñu dégg ci séentu ca lëf ci njariñ mbaa luy niin lu niroog lu saf te boo ko ñemee mu lewet mbaa lu xememu loo xam ne biir ba baaxul ca la seytaane yi naxe nit ñi ba ñu ñemeñ ko di séexlu yi ci def nga mbooloo moo xam ne balaa caa dugg ñàkk si lëf door a tab bi te doo fa jële tiwaa tiyaabam te ku wattuwul mën nga faa jële safaani tuyaaba ku wattuwul óoruma ak mbooloo mu kenn laajul kenn paas mu ne yang te wóor na ma ne boo fa jëlewul tuyaaba it doo fa jële bàkkaar bu bële feesee ba ñu di ko buuxante bii ne ŋàpp bari pexeg saytaane dong la nde gàttu xelu nit waru la toll noonu waaw mbooloo moo xam ne dañuy ñoŋal fa la ñuy xewal ne la ñuy xewal ba tax ñu def mbooloo dañ koy ñoŋal ba bët du ko mën a séen ñu dimmandikoo ay ponkal yuy dégaase ku joxewul dara ba doo mën a gis ngay buuxante ba sa dàll réer fa nga ñàkkas la fa doo la dugg nga génn ñu bindal la bàkkaar gàttu xeluk doomu aadama ne fekki ku dee fekkeeti ko xam ne day dee war la toll noonu ci sax la woon moom kay yal na nu yàlla musal ci moom seytaane dafa bari doole rek waaye kon neneen mën a am nu dul nii moom wax naa ko ba tey loo gëm-gëm sëriñ loo ko doyloo doyloo bés bu la ne doo dee rek nga deñ ci moom da nga naan kii daal moo mën a wax lu ko neex dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg loolu ngay wax baat boobu ma wax mu gàtt lool fees nopp paase nopp dugg xol muy dee tuuti na gàtt na kootuwul ñaari móola ci bind neex a waxit ci làmmiñ waaye lu rëy la xam ngeen ni muy def ni da koy weer ba mu weer mu yàq ko ba mu ay mu tas ko ni càkkaar bu yàqu yóbbu ko fu kenn nekkul ku ko ëpp doole foofu xam léppam yëttaak moom koo koy dee ku mu wóor ne dina la dak ba la nit di bëgg-bëgg boppam bu la nit ne doo dee nga denc moom soo doxee ginnaaw kañ am lu la mën a këf ba lépp lu mën a dimbale ku dem ci suuf nga di ko du mooyu du ñuuxu koy luy gaañaate ku dem ci suuf te ne naa fitna yépp benn fitna gënu cee métti bu kenn mënu la wallu bi ak bu kenn sañu la wallu bi te am na ci fitna yi fitna yu kenn mënu la wallu am na ci yu kenn sañu la wallu fitna yi bàmmeel kenn mënu koo wallu fitna yi bés pénce kenn sañu koo wallu li kulli mrin minum yow may seen saanun yuq nii kon nag kañ lu gëbu réy bii di Moustapha nga xam ne mu ngi mel ni meew ci poso mbaa mu ngi mel ni mu ngi mel ni galaas ci lay tàkk noonu la nabi mel gis naa jasakalaaw naa xayru jub yal na la ko yàlla yombal gis naa ci téere ndaw su bëgg Moustapha ci waxam booba nabee ngay duy bu xëyee defaru ba jekk dem dëju ci palaasam di déglu waxam benn xale lu góor nag bu bëgg ndaw si bëgg a gis kanam gi na mu mel te arab dañuy muur seen kanam jéem ko jéem mënu koo gis mu tëru ko bés ne ko toujours nga sañ si aw fi mu ne ko ci nabi laa jëm mu ne ko loo ci bu ne ko sopp ko rek ak bëgg déggi wax mu ne ko ci ormaam ndem sa sopp dëggala ak moom sa ormay Moustapha ëñeel sa barqa bi ma gis sa kanam mooy yi ñuy muuroo ndaw sa ne ko googu orma ku ma ci giñal loo ma sant ma def ko uññi kanam mu fab loxoom teg ci ci ci ci sa xëna ba nii ndaw sa kafak moom bàyyi ka ndaw si def xol ba yàqu nag ci li ko waa ji def loo mu retourné nettali ko jëkkëram ne ko sànq bi may dem ci Moustapha ngir sopp ko am na ku ma dogalee laaj ma ci ormaam lu ma ko defal sama xol yàqu na ci mu ne ko lan la mu ne ko sama xar kanam bi la laaj gis ba wan naa ko mu ne ko ma laaji ko nabi boobu mu ngi dund de wax ko nabi nabi na ko bu dee dëgg ci moom de lor lu ci am ñàkk gi dëgg ma jaaxal waaye demal kër ga nga taal sa fuur ba mu tàkk nga oo ko na ko ci ormay Moustapha duggal ci fuur bi nabi waa ndawaaja dem taal fuur ba ba mu tàkk ma woo ndaw si ba mu ñëw ne ko duggal ci fuur bi mu ne ko du ma dugg ci safara mu ne ko ci ormay Moustapha dugg ci mu ne ko ku tudde kooku loo ko tudde ma def na ci biir na ci biir na ci biir foofu foofu fuur ba yoxloos waa ji ne kap fuur ba dem ba ci nabi wax ko ko mu ne ko dellul seet ko mu ñëw ubbi ko fekk ndaw saa ngi toog ci digg bi ree mel na mu melo allah ilaha illallah
لك سبحانتهم ملك العظيم دائما سبحانك يا ملك العظيم دائما سبحانك يا ملك العظيم دائما يا سبحانك يا ملك العظيم دائما سبحانك يا ملك العظيم دائما
ah téere yépp bind nañu d'accord ne Muhammadu ku ko sopp sa yaram araam na safara loolu téere yépp bind nañu sopp bi rek borom Ibnu Mahayib am na saparu moo woy daf ne may ma doce man uhiddu li ihwali alqiyamati ubbu xamakan waaye man day defaru naa man borom ibnu mahi yib day defaru naa tiit yi ma dégg ci bis bi xama ko préparé lul tiite waaye man préparé naa ko xama safara wuy lakke la xama malaako yuy xëbalaate xama xaj yuy bëre xama jaan yuy bóomi waaye man day pareel naa ko lu mu ci mën a doon daal maa ngi nguul loo xam ne ci sama loxol càmmoñ ku ma ci gaar bu ma la ko dóoree nga yàqu uhiddu prépareel naa bokkul ak préparé préparé ci sa bopp la génnu la prépareel nag daf la génn am fu mu jëm kii laasim la kii dafa def taadiya fexeel ba jégg ba jalgatee day uti mafool bu dee fexeeli laasim du génn ki ko def kon préparé ak prépareel bokkul uhiddu boobu ñu ngi koy firee prépareel naa ñu ne loo prépareel mu ne li ihwaalil qiyaamati tiiti bés pénc ya prépareel naa ko ñu ne ko loo ko préparé mu ne ubbuhoo sopp na bi أبو سمد الله يا يا يا سيدنا محمد salaa lay laaw
أبو سمد الله سمير صبا يا سيدنا محمد déedéet laa wax man أبو سمد الله سمير صبا كبيرا déedéet laa wax man أبو سمد الله سمير صبا دم عبد الله الانجل aha aha أبو سمد الله سمير صبا كبيرا لمهم liif googu ci arab foo ko fekk borom day laaj أبو سمد الله سمير صبا دم عبد الله laaj nag ñaar la laaj gu borom di weddi la muy laaj mbaa muy dëggal la muy laaj أبيض من بالأسف صبا جلمك soo amee mbaxana ma àbbala ko te maa la ko mayoon nga bañ أبيض من بالأسف صبا جلمك su ma la ne xanaa du maa la ko mayoon laaju ma la أبيض من بالأسف صبا جلمك يا رنجل xanaa du mbaxana mi maa la ko mayoon a ti أبيض من بالأسف صبا يا محمد googu laaj bokkul ak foo jële sa mbaxana mi أبيض من بالأسف صبا foo jële sa mbaxana mi borom day laaj tontu أبيض من بالأسف صبا جلمك يا waaye رنجل xanaa du maa la ko mayoon a ti kooku soxla wala tontu borom أبيض من بالأسف صبا kooku la ñuy wax istifhaamu taxriir yi أبيض من بالأسف صبا جلمك istifhaamu tankiir yi أمير من بالعاصف يصبون borom a borom ibnu mahayib bi nag day laaj أمير من بالعاصف يصبون génnewul ci laaj bi mag ak ndaw góor ak jigéen أمير من بالعاصف يصبون ku am tontu te ñemeñ koo tontu tontu laaj bi أمير من بالعاصف يصبون lamb maa ngee laaj yi ku mën a tontu na wax أمير xayra si man bi la sabin saboon day laaj ndax am na kenn ci yonente yu ku niroog doomi Abdoulaye ji la xayra si man bi la sabin saboon yanan waxuma mbindeef yi de kon day gudd xayra si man bi la sabin saboon waxuma julit yëpp it kon mu gudd xayra si man bi la sabin saboon xeeb naa law li yaaw yi day gudd xayra si man bi la sabin saboon waxuma ak lan bi yaaw yi kon mu gudd xayra si man bi la sabin saboon sanji sanji sanji ñooñu laay laaj xayra si man bi la sabin saboon deux cent quatre vingt dix millions neuf cent quatre vingt quatre mille la yàlla
xayra si man bi la sabin saboon yanan cent vingt quatre mille ay supérieurs yi ñooñu xayra si man bi la sabin saboon cent vingt quatre mille yooyu trois cent treize ay seen supérieurs affaire de man bi la sëriñ Sabo.
trois cent treize yooyu sept ñooy seen supérieurs affaire de man bi la sëriñ Sabo.
yooyu Moustapha ay seen supérieurs affaire de man bi la sëriñ Sabo.
Moustapha moomu laay laaj ku ñeel ku ko ñeel ñoog moom affaire de man bi la sëriñ Sabo.
ey dégg naa li ngay wax ak li ngay xalaat du noonu affaire de man bi la sëriñ Sabo.
mbaa du maam aadama nga bëgg a tudd affaire de man bi la sëriñ Sabo.
ah kooku nabi du moroomam de affaire de man bi la sëriñ Sabo.
moo ko jur waaye du moroomam affaire de man bi la sëriñ Sabo.
laajal aadama keroog ba mu mutifié affaire de man bi la sëriñ Sabo.
pour yàlla teg ko dooleem pini ko affaire de man bi la sëriñ Sabo.
laaj ko ku ko xettali ba mu génn ci pini booba affaire de man bi la sëriñ Sabo.
aadama julliwul oorul affaire de man bi la sëriñ Sabo.
aadama jaaru jàngul alquraan affaire de man bi la sëriñ Sabo.
aadama sare xawul si kërul affaire de man bi la sëriñ Sabo.
xëy rek ñu ne ko ajanaangoog dëkkeel affaire de man bi la sëriñ Sabo.
uskun anta wa zawjaka aljannata fakula minha aysu shi'tumaa wa ayrik wala taqrabaa haadihi shajarata fatakuunaa min
affaire de man bi la sëriñ Sabo. yal na kiyaalin gàncax.
ajjanaa ngi pour peuple la affaire de man bi la sëriñ Sabo.
peuple bu fatigué laa ko dencal itam affaire de man bi la sëriñ Sabo.
fi yow kenn rek sang def dara affaire de man bi la sëriñ Sabo.
lekkal droite gauche affaire de man bi la sëriñ Sabo.
lekkal guddeeg bëccëg affaire si man bi la sëriñ Sabo.
garab gu la neex indool affaire si man bi la sëriñ Sabo.
wax mu la neex fanaanal affaire si man bi la sëriñ Sabo.
waaye rikk garab gii bu ko laal affaire si man bi la sëriñ Sabo.
aadama juum ba lekk garab ga affaire si man bi la sëriñ Sabo.
ndeysaan ñu wàcce ko ajjana affaire si man bi la sëriñ Sabo.
déshabillé aa la mu soloon lépp affaire si man bi la sëriñ Sabo.
xanama naaw affaire si man bi la sëriñ Sabo.
ko du ma ànd ak jëmm juy mooy boromam affaire si man bi la sëriñ Sabo.
ba ma naaw tubee ja naaw affaire si man bi la sëriñ Sabo.
su boole ko ak awa wàcc ci biir suuf affaire si man bi la sëriñ Sabo.
awa dal fu kenn xamul aadama dal fu kenn xamul affaire si man bi la sëriñ Sabo.
njool màkka soppeeku leer affaire si man bi la sëriñ Sabo.
dab maam aadama ca àllu inde ba affaire si man bi la sëriñ Sabo.
aadama ngay sërxët affaire si man bi la sëriñ Sabo.
dana xiif lool mësula xiif affaire si man bi la sëriñ Sabo.
ñaxa mar lool mësu koo dal affaire si man bi la sëriñ Sabo.
nabi laaj ko luy sa motif affaire si man bi la sëriñ Sabo.
jërëjëf yàlla na yàlla wane sama laa ne àjjana affaire si man bi la sëriñ Sabo.
sumeekul nga ko jara sumeekul affaire si man bi la sëriñ Sabo.
alaa ne àjjana yi du ràpp yàlla na ci yàlla jaaw affaire si man bi la sëriñ Sabo.
maam aadama dey Moustapha la ka dal affaire si man bi la sëriñ Sabo.
Moustapha am lu musa aadama affaire si man bi la sëriñ Sabo.
juróom ñaari weer affaire si man bi la sëriñ Sabo.
juróom ñaari fan affaire si man bi la sëriñ Sabo.
juróom ñaari waxtu affaire si man bi la sëriñ yow Sabo.
aadama mokkal baat ya affaire si man bi la sëriñ Sabo.
wàcce ko maam yàlla affaire si man bi la sëriñ Sabo.
yàlla ne ko gisa nga ak sama soppe de affaire si man bi la sëriñ Sabo.
nabi daf ko ne moo looy def fii ne affaire rabbana si man bi la sëriñ Sabo.
looy def fii xanaa xamula baat yi boo ko waxee loo def yàlla mu baal la mu ne ko lal la mu ne ko ne rabbana zalamna anfusana wa in lam taxfir lana wa turhamna lanakuna
affaire si man bi la sëriñ Sabo.
maam Adama dóor ko maam yàlla affaire si man bi la sëriñ Sabo.
nabi ne ko sunu borom ne ko jéggal naa la أطير سمن بالعاصم صبا gise nga ak sama soppe أطير سمن بالعاصم صبا su ma la delloo tey àjjana kon jéggal gu du wér أطير سمن بالعاصم صبا toog fi yàgg sa jabar ji tooñaat ma أطير سمن بالعاصم صبا ngeen jur ñeneen ngeen ànd ak ñoom tooñ ma أطير سمن بالعاصم ñooñu صبا jur ñeneen ñooñu jur ñeneen ngeen tooñ ma أطير سمن بالعاصم صبا ngeen tooñ ma ci biti أطير سمن بالعاصم ma صبا boole leen dugal leen àjjana أطير سمن بالعاصم صبا comme ci biir nga ma tooñe woon ma génnee la أطير سمن بالعاصم صبا tooñ ma ci biti yàgg say sët yëpp ma dugalaat أطير سمن بالعاصم nga صبا xam ne ki nga gisee ku gisee ak moom sa dara dootuma ko xool أطير سمن بالعاصم صبا kon bul indi maam aadama nabi du moroomam أطير سمن بالعاصم صبا kon nag bul ma indil mukk yonent yàlla yuusufa أطير سمن بالعاصم صبا ba mu detteeloo ci xurma la mu gaaw gaaw Moustapha la fa fekk أطير سمن بالعاصم صبا nabi nee na maam ma ma ma maag maam aadama ca ñaay ba أطير سمن بالعاصم صبا nee na maag yuusufa ca biir xuntam أطير سمن بالعاصم nee na maag صبا ibrahima ca biir safaraw أطير سمن بالعاصم nee صبا na maag nuuyin ci biir jën ci balaag ba gaaga أطير سمن بالعاصم صبا maag yunusa ci biir jën wa أطير سمن بالعاصم صبا ba muy detteerlu أطير سمن بالعاصم صبا ni la ko aw teg ko ci wetu Moustapha أطير سمن بالعاصم صبا ممكن أن لتنا بأنهم بأمرهم هذا وهم لا يسأرون
أطير سمن بالعاصم صبا boo ko doom bàyyee yaayee sànni ca kuntum أطير سمن بالعاصم ba صبا muy dëj ci kuntum fa la fekk Moustapha أطير سمن بالعاصم صبا mu ngi ko naan lii ma la wax أطير سمن بالعاصم daa صبا génn ëllëg nettali ko sa bokk yi أطير سمن بالعاصم صبا kon bul naw Yuusufa ba teg ko ci wetu Moustapha أطير سمن بالعاصم صبا damay laaj keneen koo xam ci gaa yi أطير سمن بالعاصم bu mu صبا tudde nooyin de bu ko tudde de أطير سمن بالعاصم moo صبا tax ci yonente yi waa laaj ko ca gaal ga أطير سمن بالعاصم dafa صبا ne rabbi laa tasarni alaa xaadimil kaafiriina dayaaraa أطير سمن بالعاصم صبا إنك إن تنصرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا أطير سمن بالعاصم صبا يا لنا كفصنا الفلك بأعيننا وأمرنا في ساج أمرنا وفارس النور فاستبقى من كل زوج اثنين وعلى كلا من سبق عليه قول مني ولا تقاتل أطير الدايا من بالعاصم صبا ba mu duggee ca gaal ga gaal ga daw أطير سمن بالعاصم صبا gaal ga daw mënu koo àkkal أطير سمن بالعاصم صبا xaabaabal ànd ak nit ñëpp أطير سمن بالعاصم صبا ca gaal gi baat bi koy dawal lañ ko wax أطير سمن بالعاصم صبا borom bi def ko ne bismillahi mushriha أطير سمن بالعاصم صبا ytajri fi lbahri kalmawji أطير سمن بالعاصم صبا ytajri fi lmawji kaljibaal أطير زمن بالعاصم صبا mu tiitee xamul fu muy teer أطير زمن بالعاصم صبا la kun si ne jant bi ne ko bul fenk ti mukk أطير زمن بالعاصم صبا ne duut weer bi ne ko bul fenqaat mukk أطير زمن بالعاصم na صبا asamaan loo yor ci ndox sotti ko yépp أطير زمن بالعاصم na صبا suuf bul wa naas watu dara te gëqal li nga yor أطير زمن بالعاصم صبا asamaan di sotti ndox mu ñuul kukk أطير زمن بالعاصم صبا gëqa ndox mu weex tàll أطير زمن بالعاصم صبا naan asamaan bu ma yàlla limité wul woon dinaa la gëqa ndox ba ca aar أطير زمن بالعاصم صبا asamaan naan suuf bu ma yàlla limité woon dinaa la sotti ndox ba tax tasaar أطير زمن بالعاصم صبا taax yi niiru أطير زمن بالعاصم صبا garab yi muuru أطير زمن بالعاصم صبا daaba yeeg doomu aadama yi dee أطير زمن بالعاصم صبا jol màkkaa dogale yonte yàlla non أطير زمن بالعاصم صبا na ko teeralal gaal yi ci juudi أطير زمن بالعاصم nga صبا xamal lu koy teeral أطير زمن بالعاصم na ko صبا sekkar bi ko dawal a koy teeral أطير زمن بالعاصم ñu doo ko صبا bisimilahi mu jëreeha أطير زمن بالعاصم بالعاصم waaye صبا bisimilahi أطير murseeha زمن بالعاصم xamul صبا ne rabbi la xafuur أطير زمن rahim بالعاصم صبا kon yonte yàlla nooyin du moroomi waaji de أطير زمن بالعاصم mu indi صبا kooku laaj ko gaal ga أطير زمن بالعاصم ah yow صبا sa xel ci Moussa la dem أطير زمن بالعاصم li muy صبا réer garaat Moustapha du أطير moroomam سمن بالعاصم laaj ko صبا bañ ko tàncamalee ci géej ga أطير سمن بالعاصم صبا loolu wër ko kapp ko wëg أطير سمن بالعاصم jëm صبا tabal la nga jëm géej géej gi أطير سمن بالعاصم صبا ak soldaaram yi ci géej gi amul moyen أطير سمن بالعاصم dinaa ko صبا dinaa la mu duru ko أطير لا يا من بالعسل صبر naa la muduruko يا حبيبي من بالعسل صبر naa la muduruko يا حبيبي من بالعسل صبر gore naan innama rabbi sayahdini من بالعسل صبر gaa yi ko gën a jegeñ أفيروس من بالعسل صبر traité di ko ñuuxu naan sàkkal pexe أفيروس من بالعسل صبر kawar gi bu ak sa àddina tukki أفيروس من بالعسل صبر ñun ñëpp a tey nu ala ko ndem yàlla lu yónni gaawal أفيروس من بالعسل صبر mun tontu naan kàlla ah ah mënu la nekk innama he ànd naag man rabbi sama borom sayahdini xel seet na ma
أفيروس من بالعسل صبر firaw na toroo te jëm ci Muusa أثير سمن بلا سمي صبر Muusa sës ci géej gi أثير سمن بلا سمي صبر aadaam yëpp di saalit أثير سمن بلا سمي mu ata صبر si tab ngor naan duñ ma dab أثير سمن بلا سمي صبر mu ñëw Jibril a door a daaw ñëw romb ko أثير سمن بلا سمي صبر ko idrib bi asaakal bahra أثير سمن بلا سمي صبر ey yëpp bi nga yor dóor ko ci géej gi أثير سمن بلا سمي صبر mu jaayu dóor yet wi ci géej gi أثير jërëjëf سمن بلا سمي صبر yal na la yàlla war na camalaami àjjana yow di أثير jaayu سمن sori lay بلا سمي صبر jant baa ngaa la ngaan أثير سمن بلا سمي صبر Moussa Gawar gaa nga sës ca géej ga أبي رسل من بلا سمع صبر ndeysaan géej gaa ngay ganax di ko sànni أبي رسل من بلا سمع صبر Moussa ne ŋas yet wa dóor ko ci géej gi أبي رسل من بلا سمع صبر géej ga ginnax tontu ko أبي رسل من بلا سمع صبر Firawna na tonte baraktiku أبي رسل من بلا سمع صبر gaa yi ne ko naa la muduru ko
من بلا سمع yal صبر na la yàlla war na camalaami àjjana ya أبي رسل من بلا سمع war na صبر ca jullit yëpp di jaay أبي rasulillah رسل من بلا سمع صبر mu jaay ak yet wa dóor ko ci géej أبي gi رسل من بلا سمع صبر géej gi ndax sànni ca tànk naaru أبي buur رسل ya من بلا سمع صبر firaw na toroote jëm ci moom أمير زمن بلا سمي صبر bàyyi na ko yooyu naa la muduru ko أمير زمن بلا سمي صبر yàlla yàlla war da borom ci malaane àjjana ya أمير زمن بلا سمي صبر war ci jullit yëpp di jaay rasulillah أمير زمن بلا سمي صبر ndeysaan Moussa ngi taxaw ci géej gi أمير زمن بلا سمي صبر yaa ngi jaab jaabi أمير زمن بلا سمي صبر firaw naan ko sëkkatal أمير زمن بلا سمي صبر yàlla yàlla war da borom ci sëri àjjana ya أمير زمن بلا سمي صبر wala kenn mënu ko kurul أمير Mustafa زمن بلا سمي صبر mu xab yet wi dóor ci géej gi أمير زمن بلا سمي صبر dóor yet wi ci géej gi أمير زمن بلا سمي صبر géej gi bañ na du ko faale أبير الزمن بالله سمي صبر géej gi bañ na du ko faale أبير الزمن بالله بالله سمي صبر géej gaa ngaa fuur ca tànk naaru góor ya أبير الزمن بالله سمي صبر malaakal mawte ngi leen di déy di xaar ndigal أبير الزمن بالله سمي nga xam صبر ne tan mu seen médd أبير الزمن بالله سمي صبر sun borom dogal bi Moussa ngay door yet wa أبير الزمن بالله سمي صبر ngay door yet wa أبير الزمن بالله سمي صبر amul benn benn moyen bu mu mën a jaar أبير الزمن بالله سمي صبر ndeysaan bi raw naa ngay jaabal di ñëw أبير الزمن بالله سمي صبر gaa yaa ngi naan Moussa inaa la muduru ko أبير الزمن بالله سمي صبر mu ngi naan ko inaa la muduru ko أبير الزمن بالله سمي صبر mu naan déedéet inna may rabbi sa yahdini أبير زمن بلا سمي صبر ndeysaan bañ ko sëkkantalee أبير زمن بلا سمي صبر Jibril na ko idrib baasaakal أبير bahra زمن بلا سمي صبر dóoral yet wi ci géej gi أبير زمن بلا سمي صبر mu jaayu dóor yet wi ci géej gi أبير زمن بلا سمي صبر géej gi bañ na du xaar أبير زمن بلا سمي صبر géej gi bañ na du xaar أبير زمن بلا سمي mu صبر gaa rek mu dóoraat yet wi ci géej gi أبير زمن بلا سمي صبر géej gi ginax rek sànni ci tànk yi أبير زمن بلا سمي صبر Jibril door koo wax ne ko أبير زمن بلا سمي صبر ey bul perdal soldaar yi أبير زمن بلا سمي صبر xam nga luy pexe comme géej gi gàntu na أبير الزمن بلا سمي صبر yàlla joxe na ndigal kon lee fi des أبير الزمن بلا سمي صبر salli alal يا muxtaar رسول الله أبير الزمن بلا سمي صبر julli ci nabi seet أبير الزمن بلا سمي صبر mu door a wax ne allahuma salli ala sayyidina wa mawlana muhammad ne ŋaas yet wi nekk sa géej ga taa alquran ne fan falaxat fa kaanu kulli farqin ka tawdil azim wa faqna samawati wal jina يا ah yaa man bi laa sami saboo.
maa ndax ñu ñeel nga kenn ci groupe boobu ku niroog Moustapha.
أخير في من بلا سمي صبا dama bëgg yéen ñëpp ngeen ne déedéet.